faatu ca Ndangaan quartier bi nekk ca Kaolack euh, ñu ne dañ koy denc fu mu dem ñu ne leen du fii ñu bàyyi bu digg guddi ñëw ci armeeru lew na Kaolack ak kër maam Alxaaji Abdoulaye si ne dañ koy denc am ñu leen gis bàyyi ba suba ñëw ci xalifa bi boole leen ñu dem siiwal leenu taalibe yu mer xalifa bi joxe ndigal taalibe yi ànd ak ñi nga xam ne mooy population Kaolack bi ak njaboot ak lew na ñu seen gi dem sulli ko ñu gis ko noonu moom lañ sulli noonu watat ko yóbbu ko fii si buntu armée soo koy pono sotti ko essence taal ko noonu ndax góor jigéen baaxu ci kër baaxu ci àll rawatina armée yi nga xam ne maam El Hadj Abdoulaye Niass moo ko defoon 1900 1911 bi mu ko sancee njabootam maam Amady Thiam yaay la tëdd ak njaboot gi waaye maam Assou Dianka yaay bàyyi fi la tëdd ñu ne góor jigéen daal baaxu ci kër baaxu ci àll ku gis rek nañ ko taal jërëjëf population bu law nañ seen rawatina taal bay waaye njaboot ak waa Kaolack am nañ jaaraam kon daal yéen ñi nga xam ni yéen a ngi doon laaj lan moo xew lan moo xew kon lii moo xew benn góor jigéen bu ñu jàppoon fële ca Kaolack ginnaaw buñ ko bëggoon a denc ca armeel ya ndaw ya nag ñoo lànk ne du ci dal ba gis ngeen noonu lañ ko mujjee def dañ ko mujjee eh, taal bëri na nag ñuy interpellé di laaj lan moo xew lan moo xew image lan la image yi lan la waaye image yi noonu la demee dañ ko bëggoon a eh, suul ca armeel ya waaye ndaw ya dañoo lank daal di koy génne ginnaaw bi ñu ko génnee nag ñu euh, sorti ko ay pën daal di koy taal comme noonu ngeen ko gisee ndax góor jigéen moom baaxul ci kër boo xuma laa baaxul ci mbedd boo xuma laa sax ci kër rawatina armeel yoo xam ne ay jullit ñoo fa tëdd ñu doon jàmm yàlla seen borom yow sa dund gi nga ni euh, borom ñaari tur yi nga dem ba génn àddina bëgg ñu denc la ci armeeli jullit loole mënta nekk moo tax askano fipp daal di koy def jëf ji mi ngi noonu bu ngeen gisee nag ñu def nii image yi ni ko flotté nii plateforme bi di YouTube moom moo nanguwul image yi tàkk-tàkk yi euh, muy jàll daf koy jàppale ni nga xam ne moo de violence loolu moo waral ñu flotté ko nii rek pour wax leen li nga xam ni moo xew fale ca Kaolack ni ki démb jaa ngeen jëf